li nga xam nekk moo ay cadeau ñëriñ ci mission bi nga xam tam itam fas ko daal di faram fàcce ak yeen den daal di ñëw entre autres ci li nga xam modi euh, les conseils euh, des sages au président Bassirou Diomay Diakhar Fay sur la date ñël dissolution de l'Assemblée nationale en tout cas jamono ji donc ñi ngi nekk si tànk pour la du koy li nga xam nekk moo di ni des na ko daal di faram fàcce suñu mu gën yato exactement euh, jëmale ci nga xam nekk moo cette grosse décision du conseil constitutionnel foofu si doon nag président public bu Sénégal ñi ngi amal li nga xam nekk moo conseil des ministres way tam ngeen daal ñëw itam si li na xam ne moo di euh, la DPG bu Ousmane Sonko li nga xam ne itam moo ko daal tàddeel ba tey jii dañ daal ñëw itam si plainte bi na xam ni itam may mën a nuux fay moo ko daal biral contre ki na xam ne moo di Cheikh Bara Ndiaye jàpp ni Cheikh Bara do ko li nga xam ne moo di euh, euh, diffamé maanaam daf ko Euh, parce que si d'accord ko waxal loo xam ni itam amul euh, den daal di ñëw itam si que moo dit euh, Jeune Afrique mu daal faire def ay révélations exactement concernant la médiation entre qui nga xam que voilà comme protocole du Cap Manuel et la méfiance Bousman Ousmane Sonko des na ko daal di faram si nous exactement Je si laisse nga xam ne que moo dit les révélations de Jeune Afrique sur le protocole du Cap Manuel Maintenant, on wi nga xam ramener itam ñoo tes nañ waxtaanee ko foofu ak diggante Ousmane Sonko ak ki nga xam ne que moo di euh, l'ex président euh, Macky Sall alors tout d'abord da nga koy daal di euh, dooree afam par rapport ak li nga xam ne que moo di information bi nga xam ni itam wàcc na force droit ko protocole bu Cap Manuel média euh, Jeune Afrique nag mu divulgué des ay information concernant euh, supposé dialogue bi nga que euh, le président sortant ak ki nga que Modi Ousmane Sonko médiation bi été amna facilité d'après toujours le journal Pan-Africain, l'initiative de médiation dafa daal exactement société société civile bi ñom ñoo daal di tenter convaincre ki nga que Macky Sall pour mu pacifier exactement l'espace avant de quitter ses fonctions question en réponse Macky nag moom daal di jàpp ni pare na Euh, pour daal li nga xam ne que moo di pacifier exactement l' espace loolu mu daal si ànd ak ses amis bokk na si ki nga xam ne que moo di colonel Gishma ak euh, Khayli euh, mu nekk aussi benn homme d' aussi ki nga xam ne que moo di Ousmane Yara ñoo daal di àndandoo daal di ki nga xam ne que di Macky Sall daal di pacifier l' espace laata mi daal di dem moom Macky Sall nag mu daal di koy proposer bëgg na daal di ki nga xam ne que moo di Ousmane bi nga xam ne itam jamono jooju mi ngi woon foofu si waanu prison bu li na xam ne que cap annuel. waaye ki n'a xam que Modi euh, Macky Sall reste sceptique en raison tension yi n'a xam ne itam fi à l'époque Ousmane Yara moom mu daal di approché ki n'a xam que Modi Marine Marème Faye ex épouse wala kon autant pour moi l'épouse euh, bu ex président di ki nga xam que Modi Macky Sall ki n'a xam que Modi Ousmane Yara mu arrivé pour convaincre ki n'a xam que Modi justement Euh, Macky pour mu daal di gisante ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko moom Marième Faye pour convaincre exactement qui n'a ramené que modi Makisal, Macky Sall Macky Sall nangu euh, mu di koy euh, amal benn kër yi que modi euh, visite en tout cas et c'est Sall ministre de la justice à l'époque mu daal délivrer exactement quatre permis de visite mu di koy jox qui n'a ramené que modi Yara Ousmane Yara nag loolu moo permettre mu accès force à Cap Manuel alors cependant une fois sur place qui n'a ramené que modi Ousmane Yara mujjul di convaincre voilà que rencontrer directement président Ousmane Sonko dafa daal di jàll euh, ñenn si ay lieutenant am bokk na si ki nga xam ne moo di euh, Abass Fall.

Euh, protocole bu manuel alors euh, lors des pourparlers madame si waxtaan wi ki n'a xam que moo Ousmane Sonko exiger la libération des manifestants arrêtés maanaam ñi n'a xam ne itam teg neen loxo ñu daal leen bàyyi ñu daal ñibbi seen ay kër bokk na si Bassirou Diomaye tandis que Macky Sall mu daal évoquer exactement benn loi d'amnistie waaye possibilité yi n'a xam ni itam am reporter élection présidentielle à l'époque Jeune Afrique Mingi ngi préciser que ni ki nga que mu Ousmane Sonko dafa adopté position bu Amig, euh, tout en tout temps se déclarant légaliste <laughs> nee lu mu def da fay dal légal en conséquence ni ki li nga xam que mu di le 3 février Macky Sall mu daal annoncé le report de l'élection waaye itam mu daal euh, libéré plusieurs opposants euh, ak aussi les détenus politiques donc loolu li mën japp exactement sur le protocole du Cap Manuel Macky Sall and gi nga xam te ànd naka ak maliens yi mbokk na ci Ousmane Yara ak yenn Say homme d'affaires pour dal ni waxtane ki nga xam que mu di Ousmane Sonko ay point d'accord dal di ko ci jubóole euh, si kanamu ki nga xam que mu di lieutenant Ousmane Sonko di Abass Fall alors enfin protocole protocole bi lu bari bari protocole Baïsogui protocole Cap Manuel nekk protocole bi Arfan ñu né Ousmane Sonko a été méfiant aussi il a pu adopter une posture de légaliste. Hamadou, protocole ngay lire ni hmm. nga ne kan moko bind. Euh, Jeune Afrique voilà jaaxal la wax bi man fofu la lay xaré kan mo bind protocole bobu nga ne ma Jeune Afrique Jeune Afrique c'est un journal manipulé comme Canard enchaîné en France comme Charlie Hebdo c'est les mêmes journaux. donc non non non il faut que il faut que comprendre ni que Jeune Afrique d'abord je Jeune ah, Jeune Afrique c'est pas un journal crédible. ci jamono Yele nekkoon na mais jëm jamono bii ñuy wax. un journal manipulé c'est un journal de propagande de propagation. Hmm. homme politique yu bëri dañuy fay journal pour mu defal propagation. Hmm. Jeune Afrique c'est voilà. Hmm léegi c'est liguey dafa quoi C'est liguey dafa yàqoo c'est c'est un journal manipulé maintenant xam dafa lu mu wax yépp ci taxi bi waxul fenn que Ousmane Sonko a été d'accord ou bien ah, il a été méfiant il a utilisé bat méfiant même man gëwuma sax ce qui a écrit dans l'annulation des détenus politiques xam man dama gëmul euh, manam protocole moy nga wax ma wax nga jëfé li nga wax exactement ma te ma jëfe li ma wax dama né fi Sonko exige na la libération des détenus politiques euh, et étant d'autres et d'autres donc iske nekul que nekkul wax waxtane que mi wax ndax té aussi la libération de Jomay Sonko waxtane woon na ko il faut faire très attention avec mm. l'information d'après Jeune Afrique il faut faire très attention. non, non, euh, il y a qui précise, toi. je précise, voilà, voilà, voilà. Afrique. Okay. Moi, il faut faire très, très attention ah, ah. avec l'information. D'afrique il y a des informations manipulées. Ok. Tu m'as dit que tu as dit Adinabi, bi dafa basculer dafa le tournir il y a des informations manipulées Jeune Afrique c'est un journal manipulé wax comme Canard enchaîné en France comme Charlie Hebdo comme euh, Afrique Confidence comme Afrique Confidence c'est des journaux a xamante dañ manipuler pour de propagation au moment des faits au moment des faits au Cap Manuel Jeune Afrique n'était pas sur les lieux au moment des faits Jeune Afrique n'était pas au Cap Manuel pour relater des informations comme le journaliste le fait souvent. mais Afan Ousmane Yara. il faut pas il faut pas nga dagg ma. mais Afan Ousmane Yara yàgg nekk si Fallu ngir yàlla bu ma bu ma dagg. yaa nekk moo nekk bu analyse parce que sinon émission bi du jeex. alors allez-y donc. da nga ma poser question. moi je développe Vous faites que ngay andi ruube ragal naa émission bi du jeex. allez-y dama moi alors donc dama au moment des faits protocole Cap Baye Sodi bu Jeune Afrique n'était pas sur les lieux excusez-moi alors donc comme Jeune Afrique n'était pas dans les lieux ce qui veut dire que nit qu'on a nattali lolo, nit moo ko ne bind ko c'est ça la manipulation comment non mais c'est ça le mot en faveur de qui on sait pas parce que moi, li ci journalisme si Jeune Afrique était un journal crédible il devait faire des investigations au Cap Manuel nous autoriser ko wala ñu bañ ko autoriser mu Cap Manuel mais journal le journal jeune Manuel may ma ma may ma exactement Afrique c'est un journal étranger fait le délai information mais moi tax la c'est des personnes a ko ne li parce que le Bir Cap Manuel tu crois que Jeune Afrique dina jógee bitim rew nous dugg suñu président fi té ñu am ay médias yi pays, fi am mënu ño xamanté xamante mënuñu ko def il faut arrêter ça aussi Jeune Afrique ay nit ñoo nekk ci ginaawam ne ko bindal li bindal li bindal li l'histoire est tellement cohérent pour être vrai alors que c'est faux c'est archi faux il y a de l'incohérence il y a il y a de l'incohérence dans cette histoire xawma ndax xam nga ko ñun ñun ay journaliste lañu xam nañu information bu baax information bu cohérent xam nañu ak information bu incohérent attention dem nañu ba tudd Mariam Faisal. C'est ci la médiation Moi, moi, faciliter li, moo convaincre Macky Sall moo il faut arrêter ça tout de suite il faut arrêter ça tout de suite lii du xabaar yu xibaar yu wër yu c'est des informations manipulées tapées noir sur blanc ñu ne ko comment on peut non Mariam Faisal je convaincre Macky Sall <laughs> pour que je ak gisante Ousmane Sonko ñu ne ñu ne non la femme de Ousmane Sonko Anna hmm. dafa xam Ousmane Yara non mais ça franchement c'est comme si casting hein, lu ñu bind gis nga lu ñu bind nii mën nañu ko dem jaay la maison de production Marodi. wala Even Even Pro mais Evan, 1 lu tax nga bëgg a euh, jël lépp rejeté c'est faux amul c'est archi faux c'est archi faux ma la information bu ñu manipuler la fallu il faut que nga xam loolu ci domaine boobu la ñu nekk. Hmm. le journal la demul ci les lieux. ay nit ñoo ko ne bindal lii def ay recoupement ne ko xoolal bindal lii bindal lii bindal lii nga publier ko Jeune Afrique ngay wax di <laughs> yow Jeune Afrique nga may wax non da may wax beneen journal bu crédible c'est pas Jeune Afrique. alors c'est clair exactement. pas Jeune Afrique. alors c'est clair donc Jeune Afrique un journal manipulé. dañ koy ne bindal lii mu bind ko. alors alors ñun xam nañu Jeune Afrique. <laughs> <laughs> Fallou yow la Jeune Afrique jaaxal. alors mais ñu nekk ci les médias. di def di dans les médias étrangers chaque fois nous ñu ngi ci page seen Afrique chaque jour man maa ngi page. Mm, mm. on sait comment ils manipulent les informations pour ay président Fallou wala pour ñu dàq ay c'est Afrique il fait ce boulot là. Canard enchaîné en France fait ce même boulot. Afrique Africo Confidence fait ce même boulot. falu nous xam nañu ces journaux là. alors enfin euh, ñu daal poser exactement exactement euh, ce débat sur la table.